ndeysaan Balla ak Aysat buri Serigne Mbacke ak maaram sëñ Muntaxa ngi nii di julli ji sëñ Muntaxa Mbacke gi nii di julli ji cëm Balla Aysa waaw ñun de danañ julli mi ñun de dañuy julli ji ñun waaw waaw Balla Aysa nga ne di julli ji ñun de dañuy julli Mbacke Balla xool ko ma ngay julli ji ma ngay julli ji ma ngay julli ji ma ngay julli ji laa ilaaha illallaah da warante la dañoo delloo ne Sëñ Tuubaa ne ab sëriñ boo ko jàpp jàppal sëriñ bi Sëñ Tuubaa te ñetti junni yi indee ko ba léegi de. ak yàlla nga fi yàgg tey ak yàlla nga fi yàgg waaw ñu ngi nii si jumaa ji maanaam fii fii la sëñ bu teg xam ne si ngay raxamu bu ko defee waajal yees na waaw